بيت وختم الكل الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وعزيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi ginnaaw bi ñu santee borom bi tabaraka wa taala borom boobu nga xam ne moom méngoo ñu baax ñi seeni mbir ñoo ngi seede ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni waaye ñoo ngi dëggal ni it mooy yonent bi mujj ci yonent yi yonent dootul ñëw ginnaawam loolu jullit ñi dañ ko war a gëm waaye war ko dëggal lu tax mooy alquran yaqub alquran moo si wax maa kaana muhammad aba ahadin min rijalikum walakin rasulallahi wa xaatama nabiyin alquran yàlla mu wax ne yonent bi du bàyyu kenn si yéen waaye yonent bi yàlla la te moo tëj yonent yi mooy yonent dootul am ginnaaw kon kooku yaqub alquran la comme que yàlla nag wax na loolu keneen ku ñëwati ginnaaw yonent yàlla Muhammad ni ab yonent la wala muy woote lu mel nib yonent dañuy xam ne waxi caaxaan la rek dañuy xam ne kooku weddi na alquran rek dañuy xam ne kooku weddi na yonent bi te ku weddi alquran weddi yonent bi bokkatoo ci lislaam même boo dee julli sax kenn warta topp sa ginnaaw ndax la ngay def kenn reconnaître ko xam nga nit ki li muy def bu fekkee dañ koo reconnaître lay baax bu fekkente ne yow nag. ik la ngay def yalla reconnaître tu ko bu boba lo ci def lu bax kon ku top sa ginnaaw lu mu def lu bax ñongi ñaanal ki nga xamne moy borom kër gi yalla na yalla doli ko sam may ko wër may ko gudd fan ba liggey bi mu yegg fa fo xamni ni dana raw ak ñortam ñongi leen di nuyu yeen auditeur yi nga xamne ne deglu ay Misbah TV di ànd ak moom seen émission diine yi nga xam ne moo fi faral di jaar moo xam lax dar yi la wala yeneen yi nga xam ne moom moo fiy jaar si ay tafsiir ak yeneen yi fi jaar yooyu yëpp yéen ñi koy déglu ñoo ngi leen di ñaanal jàmm di leen wax ni salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu tey nag ñoo ngi ñëw si wàllu ku faat julli te di ko fay ndax julli li mu faat ndax. kon ñoo ngi ñëw ak yéen si. julli naka nga koy fayé xam ngeen wax nañ leen ni mo xam la ngay fay ay bor yu bari la wala bor yu néew la waye nan nga koy fayé mom la la bëgg wax te ju te fay julli nak léeg-léeg lu xawa jafé lay nek moo tax ne yaji bu warna qada'u ma fi zimmati fay li nga mo nek ci si loosu ki nga xam ne moom moo bàyyi ay julli mina salawaati si ay julli maanaam loolu dafa war yajibu qadaau maa fi zimmati mu ne war na fay maa fi zimmati li nekk si loosu ki nga xam ne moom dafa war a julli te mu faat ko fay googu mu koy fay dafa war si moom du bu ko neexee mu fay ko wala de bu ko naq déedéet dafa war si moom mu fay ko mina salawaati si ay julli moy nak fay googu mu koy fay nak bum ci eppal wala yahillu du dagan at tu fihah. muy muy muy eppal nak fihah, sa fay googu muy fay julli gi legi bum ci eppal lolou moy lan dinañ ko gis ci bir mani waman salla kull yawmin khamsata ayamin ko xamni ni dafa faton ay waxtu yu bare bare bari bis bu jot mu julli lu tollo juróomi fan koku eppalut manam mom limu faat bari na dafa faat ay fani fani fan man na nek ñaari weer te te te moo ko tey loolu mu dem diko fay bis bu jot mu jël juro lu tollok fayu juromi fan diko fay mu ne ki def lolou eppalut moo tax mu ne wa man salla kulla yawmin ku julli bis bu jot xamsata ayaamin juróomi fan fa sa déet kooku bi mufritin muy nekk ku ëppal waaye nag na ko fay rekk comme moom ni mu ko faate wa yaqdiha na ko fay ala nahwi ma faatatu comme moom ni mu ko faatee loolu mooy lan na ko fay comme ni mu ko faatee su fekkante ni nit ki bi muy faat julli gi mom mom mi ngi ci si tukki wul demul fenn mi ngi ci kërëm mu dem ba tukki legi julli yoy nga xamne mom daf ko faatone bi mu nekké ci kërëm wala mi ngi si biir tukki wul demul fenn bu tukke bu koy fay da koy fay comme julli ku tew du ko fay mukk comme julli kuy tukki mu ne naka noonu yit ki nga xam ne moom ba muy faat julli yi si tukki la ko fekk mu ñëw ba këram wala mu ñëw ba dëkkam di fay julli yooyu nga xam ne julli kooku waxtu wa mi ngi ko fekk waxtu si si tukki wala foofu mu toll moom wàññi fa julli dagan na boobaa daf koy fay comme julli koo xam ne dafay tukki moo tax mu ne wa yaqdiha daf koy fay ala naxwi ma faatatu comme moom ni mu ko faatee woon julli googu noonu la koy fayee mu la koy leeralal mu ne in kaanat xadariyatan su fekkente ni julli gi dafa nekk julli teew nga xam ne tukki woo yaa ngi teew xadaaha na ko fay xadariyatan comme julli teew wa in kaanat safariyatan su fekkente ni moom dafa nekk koo xam ne nii ba muy faat julli ga waxtu woowu daf koo fekk moom si tukki tabaxaa na ko fay safar yetan comme moom kuy julli julli tukki moo xam waxtu woowu mu koy fay moom mi ngi teew fii tukkiwul walla waxtu wi mu koy fay mi ngi nekk ku tukki moo tax mu ne sawaa un moo xam kaana moom mi dafa nekk xiinal qadaa yi waxtu wa muy fay fil xadari moom mi ngi teew waaye moom waxtu wi mu koy fay mi ngi teew waaye boobu moom waxtu julli yooyu ba mu koy faat moom si tukki la ko fekk aw safarin wala moom bi muy fay waxtu julli yooyu mi ngi si tukki te fekk ni moom ba mu koy faat dafa fekkoon moom tukkiwul woon mi ngi woon këram wala mu ngi teewoon si dëkk bi nga xam ne foofu la dëkk loolu mooy lan loolu mooy ne dangaa tukki nga départ dugg oto yoon wi sori na waxtu julli jot oto bi taxawul wàcculoo tisbaar fekk la ci biir oto bi mënoo wàcc tàkkusaan fekk la ci léegi bi nga yëg ci sa kër guddi nga yëg ci julli woo tàkkusaan si bi nga nekkee si tukki bi julli wooyi tisbaar nga ñëw nag ba yëg si sa kër nag di fay nag julli yooyu mu ni noo koy fayee xam nga julli tisbaar ak tàkkusaan yow mi nekk si tukki dagan na nga nga wàññi boole waxtu wu nekk nga julli ko ñaari ràkka maanaam nga jël tàkk tisbaar gi def ko ñaari ràkka jël tàkkusaan gi def ko ñaari ràkka waaye nga boole leen mooy si saa si ngay julli ñaari yépp dangay julli ñaari ràkkay tisbaar sëlmal jóg si saa si daal di liqaamaat daal di julliwaat yeneen ñaari ràkk mu nekk sa julli tàkkusaan léegi nag ñaari waxtu yooyu yépp si tukki bi la la fekk ba nga yëg si sa kër nag guddi nga bëgg a fay nag ñaari waxtu yooyu noo koy faye danga koy faye comme bu fekkonte ni da ngay tukki noonu ngay wàññee di boole noonu nga koy fayee te fekk ne yaa ngi sa kër loolu nag ñu bari duñ ko def yow daal danga nga daf daf laa fekkoon ci tukki julli gi faat nga ko te du sa coobare bopp léegi nga ñëw ba sa kër nga di ko fay nga bëgg koo fay nag comme ñeenti rakka nga ne comme que man léegi yëg si naa nekkatuma si tukki bi bu ma koy fay naa ko def ñeenti rakka laxdar la ne déedéet nanga ko fay rek comme ni nga ko faatee si booy tukki beneen bi it mooy yow danga tukki ba nga demee si tukki bi am na julli yoo faatoon booba yow sa kër la la fekk. manam yaangi ngi préparé ji jot julli wo takusan ji jot julli wo nga dal di dugg si auto bi wala ci lu manti don nga tukki nga dem ba yegg nak legi nga bëgg fay nag julli yoy nga xamne yow sa kër la la fekk wala sa bir dekk te julli woko legi nga bëgg ko fay comme julli tukki mu ne la déedéet dang koy fay comme comme comme julli tew bu de du ni tisbar la nga koy fay te fekk ni yaa ngi tukki jullil ñeenti ràkka yu mat sëkk su fekkente ni tàkkusaan la nga koy fay te fekk ni yow yaa ngi nekk si tukki waaye ba mu lay faat yow tukki wowoon bu boobaa jullil ñeenti ràkk yu mat sëkk kon julli gu nekk na nga ko faatee rek noonu ko koy fayee su fekkente ni bi nga koy faat yaa ngi si tukki yëg si nga sa kër di ko fay julli koy par ñaari ràkk parce que dagan na si yow boo tukkee nga wàññi sa julli te boole su fekkente ni it yow it bi ngay fay julli gi si tukki la la fekk nga ko faatoon nga ñëw ba yëg si sa kër bu boobaa yow it soo koy fay fay ko rek comme julli tukki wa tartibu baynal baynal xaadiratayn wa bayna yasiiril fawaiti ma al xaadiri mu ne nag léegi boo koy fay noo koy faye léegi ñaari julli yi teew soo koy fay da koy toftale dangay jël julli gu jëkk gi nga jiital ko ba pare teg si gu mujj gi masalan yow dangaa ñëw ba teew ngay julli te fekk ni yaa ngi ci sa biir kër walla yaa ngi ci dëkk bi ngay julli nga na ko toftale comme ni mu toppante woon Tisbar mo jitu takusan jëkkale juli tisbar bi tek ci takusan wala bu timis timis mo jitu ge jëkkale julli gee gi teg si euh, jëkkale julli euh, timis bi soog takusan. seg tàkkusaan bi waaye da nga ñew ba yeksi légui yow julli tisbar faatoon na la julli takusan na la nga ñew ba yeksi si kër gi nga ni légui comme que gee jot na naa julli gee pare soog a fay mu ne la déedéet da ngay julli yi la faatoon ba pare nga toftalee ko noonu nga soog a ñëw nag daal di julli julli gi nga xam ne mooy julli teew. moo tax mu ne wa tartiibu toftale baynal xaadiratayn diggante ñaar yi nga xam ne dañoo teew loolu moom ngay def wa bayna yasiiril fawaa'iti ak diggante ñaar yi ak yi nga xam ne danga koo faatoon te fekk ni. ma alxaadira dafa ànd ak jullit teew mu ne loolu day waajibun lu war la maanaam yi nga faatoon bu fekkente ni dafa ñëw ànd ak jullit teew nga jiital yi nga xam ne danga nga koo faatoon soo ko julli jullit teew gi moo ni mu ni loolu war la kon li war nag danga koy def li warul nga bàyyi ko maa zikri wal yasiru arbaatu salawaatin fa adna wa man kaana alayhi arbaatu salawaatin fa afdala sallaaha qabla alxaadirati mu ne li mu la bëgg a wax mooy ki nga xam ne dafa faat ñeenti waxtu ñeenti waxtu yooyu mu am juróomeelu waxtu boo xam ne nii moom la war a julli maanaam yow jullik fajar da koo faat jullik tisbaar julli tàkkusaan julli timis ñeenti julli yii yépp danga koo faat julli woo ko ba nga yëg si nag léegi nag gee teew nag nga war a julli nag gee léegi nag yow nan ngay def dangay julli ya nga faatoon ba pare dangay tàmbalee sa suba ga julli ko indi tisbaar indi tàkkusaan indi timis ba pare nag soog a julli nag julli gee gi nga xam ne moom moo teew moo tax mu ne maa di tudd wal yasiru li gën a yomb arbaatu salawaatin ñeent fa adna bu ko defee day julli ba gën mooy ya xam ne moom mooy ya ko faat mu ne waman kaana alayhi arbau salawaatin koo xam ne nii nag moom dafa nekk ci kawam ñeenti julli yoo xam ne nii daf koo faat bu ko tàmbalee di ko fay waxtu yi mën naa dem ba jeex mu nekk ci fay gi waaye boobaa na fay ba pare mu soog a julli waxtu wi nga xam ne moom waxtu wu wi mu ne waya juusu dana dagan nag alqadaau fay fi kulli waxtin ci bépp waxtu bu fay julli mom dagan na ci bépp waxtu lol lan motax mu dikoy wax xam nga amna na waxtu yo xamni ni daganu la la nañ ko lu melni ni julé fajar ba paré fek jant bi gennul fofu dafa arama naafi la ginnaaw bu ñu jullee fek jant bi sowul fofu dafa arama na naafi la kenn du fan naafi la waaye bu fekke fay julli nak mom dagan na si waxtu wu nek nak mo xam waxtu wo xamni ni dagan na naafi la wala waxtu daganul nafila ndax lutax parce que lolu ngay fay farata la kon motax muné warna waya yajuzu dan dagan al qada fay fi kulli waqtin si bepp waxtu waye nak su fekente ni de mom day fay bu boba du julli du ko bolek nafila manam yow da nga am ay bor ko fay légui nga bëgg sa yo fayé ben bor nga daal di def naafi la mu ne déedéet loolu moom doo ko def masalan da ngaa amee boru tisbaar am boru tàkkusaan am boru timis nga bëgg leen a fay nga julli tàkkusaan ba pa maanaam nga julli tisbaar ba pare nga ni xaa xaaral ma teg si ñaari ràkkay la déedéet da ngay fay tàkkusaan non da ngay fay tisbaar fay tàkkusaan fay timis waaye nga ni dangay fay ba pare boo di ko naafi la mu ne loolu moom du dagan moo tax ma ne wa yajuuzu dana dagan alqadaau fi kulli waqtin waaye wala yatanafalu waaye nag du naafila de ma man alayhi ki nga xam ne dafa tegu ci kawam alqadaau bor ki tegu ci kawam daal moom bor kooku du naafila mu ne wala yu salla adduha du julli julli yoor yoor fekk ne moom bor a ngi si kawam wala qiyaama ramadan mooy julli gi ñuy julli mooy xiyaamu ramadaan mooy julli naafila si weeru koor mu ne ba tey loolu du dagan si yow fekk yaa ngi amee bor mu ne wala yajuuzu lahu du dagan si moom muy julli jullik naafila fekk mi ngi amee bor illa shaf lu dul rek jullik safaa jullik safaa moom même boo amee bor boo yeggee si jullik safaa moom da ngay def safaa wal witru ak jullik witru wal fajru ak ñaari rakkay fajar mune yoy mom man nga ko julli waye benen nafile bu mu si man nekk nek fek ngi amé bor di fay bor yoy bor yi mata gut mune bu boba mënoo ko def lolou yomb na deg yow yaangi ngi bor di may xaliss te fayo say bor lolou kay ken mënu ko yow yaangi ngi bor ñing la taxaw si bor yo wara fay ngay jël xaliss sa nga fay sa bor ngay maye lolou xam nga ni ken mënu ko deg lolou moy ko xamni ni da nga amé ay boru julli ba pare bayiko fa dem di naafila motax tax léeg ndaysan ngay gis ko xamni ni ci suñu réew mi lu ne nga fi gis da ngay gis ko xamni ni day déparé fee ñu ni dañuy def ñaari rak ci bërepp sangam mu déparé dugg auto dem def ñaari ràkk yooyu dikkaat té mom julli farata yi yonam neeku ci koku dafa son rek waye amu ci benn tuyaba amu ci dara nak parce que lolit yow faale wo julli farata yi faale wo li la yàlla wax do dem sa jakaja ja bu julli faral doté fi fi ngay tok do déplacer sax ki pour julli nga dégg ñu ni ñi ngi def ñaari rak ci bërepp sangam nga départ dugg auto dem pour féké ñaari rak yoyu lolu mm, ken xamuko lolu ci bopam do ci am benn tuyaba parce que li la yàlla sant ko di def lo xamni ni ken sante sant bu boba kon do ci am benn tuyaba motax mu ne ki nga xamne dal dafa wara fay bor moom warata naafila du xiyaamu layli du julli gi muy julli si taxawaayu julli koor du julli euh, yoor yoor lu dul ne moom safaa ak witar ak fajar wala iidaani ak ñaari julli feet gi muy korite ak tëbaski kooku moom mën na koo julli te fekk ni dafa amee bor wal xusuufu ak julli xusuuf mooy bu fekkente ni euh, jant bi dañ koo tëye wala ñu tëye weer wi ñu dem di julli ñaari ràkka pour yàlla dindi loola bu boobaa mën na koo julli te fekk ni sax moom am na boru farata wal istisqaa wala julleeg baawu naan nga xam ne dañoo dem ba bekkoor bi metti taw waroon a wàcc te wàccatul ñu ne nañ julli jullig baaw ngir yàlla wàcc taw bi boobaa yow mën ngaa bokk sa jullig baawu naan nga donte yow farata da ngaa am farata yoo faat mu lol da dagan na mu nak waya juzu dana dagan liman man alayhim alqadau an yusallu jamaatan mu ñi nga xam ñom daño wara fay julli ñom dana dagan si ñom ñu julli ko jullik mbolo manam ñun ñoo andon di tukki am nañu ay bor yu bari si yo xamni ni dañ ko wara fay ndax buñu kenn ku nekk day beru di fay mune dagan na ngeen def ko jullik mbolo wut kenn mu jité su ko defé comme que yena a euh am boru tisbar bokkoon am boru takusan bokkoon am boru timis te fekk yena ngi ci tukki bi wala fu ngeen mënti nek mais bor yi yéen ko bok bu ngeen ñëwee ndax kenn ku nek day beeru di fay dedet mune man ngeen julli jullik mbolo bu ko defé ngeen sak ben imam bu ko defé yeen ngeen top ginaam ngeen def ko jullik mbolo comme que yeen ñëpp da ngeen di fay moo tax mu ne dana dagan waya juusu dana dagan li man alayhim ñeel ñi nga xam ne nekk ni seen kaw alqadaa u bor an yu salluhu ñu julli jamaatan julli mbo ik mbooloo izastawat salaatum su fekkente ni seen julli ya moo tolloo su fekkente ni seen bor ya moo tolloo ñoom ñoom boru tisbaar ak tàkkusaan ak timis ñoom ñëpp ñoo ko tolloole boobaa mën nañu ko julli julli mbooloo wa man nasiya adada ma alayhi min alqadaai Salla Adadan, la yabqa ma'ahu شك mu ne koo xam dafa dafa fat ay julli yu bari ba xamatul mom limu fat faat ñaata la léegi mu bëgg ko fay moné ne moom nay julli rek ba xelam dal ne mom kat lamu faton legi fay nako bu baax mom ki la koy fay manam dafa tok ay fan fan wul mom ba mujj gi sax mom limu mu lim li mu julli yi nga xam ne moom amee na ko bor xamatu ko léegi ñu ni kooku nan lay fayee bu bëggee fay day julli rek ba xelam dal ni moom lim ya mu faatoon léegi fay na ko bu boobaa moom noonu la koy fayee moo tax mu ne waman nasiya ku fàtte adadama alayhi limu la nga xam ne moom moo nekk si kawam minal xadaa si ay bor fàtte na limu bor yooyu mu ne moom nu mu koy faye na julli ah, adadan lim boo xam ne nii laa yabqaa du des maahu si moom chakkun benn sikki sàkka maanaam du def maanaam benn sikki sàkka du des si moom ne moom li mu doon fay léegi mat na kon na julli ba mu wóor ko ni moom léegi daal amatul benn sikki sàkka ni moom la mu amoon si ay bor mat na bu boobaa moom noonu la koy fayee kon gis nga julli ni mu amee importance ak it du la wàcc même bor yi nga amee léeg-léeg ngay dégg koo xam ne nii dañ koy laaj ab laaj ni ko ma wakkeki waa ji daal toog na weer julliwut léegi nag mu bëgg a ñëw di julliwaat ñu ne ko léegi da ngay tàmbali rek nga julli déedéet da ngay fay weer woowu yëpp parce que yow yaa ko bàyyi sa sa coobarab da ngay julliwaat weer bu mat sëkk boo ko bëggee fay léegi nag boo ko bëggee fay yow nooy def saa yoo jullee tisbaar jóg julliwaat beneen tisbaar ba mu mat weer saa yoo jullee gee eh, eh, tàkkusaan jóg julliwaat beneen tàkkusaan saa yoo jullee gee jóg julliwaat be ekki beneen gee kon yow yaa ngi fay julli yi su matee weer mu wél na ni yow weer nga toogoon julli kon weer wa mat na fay nga julli yi nga xam ne moom la moom moo la faatoon kon noonu nga koy fayee. kon julli motax bo boo gisee nu yàgg si nii julli dafa am importance ak ni koy fay te ñu bari xaw ko sagane legi te ku ko sàggane rek sa diine sagane ko ko nañu yalla mi deg top wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslim ختم القرآن